yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawféex waaye da ngeen am xaas tawféex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax. jërëjëf ci kenn mag sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu mbokk yi tey ñu am pas-pas bu sell ak yéene bu sell ba tey kàddu gi di bay ko fu mu baaxoo bay ko ngeen di ci ànd ak seen ndongal daara Ibrahima Seck insha allahu di leen digteel ci firam olof xasidak sëñ Tuubaa goo xam ne nee ne képp koo xam ne mokkal na ko du tàbbi koso wala ku tàbbi koso buñ ko ko jàngalee ci yéene gu sell saa borom subhanahu wa taala dana ko ci génn ca gaaw ñi bàyyi wala xel ne waxuñ nit ki tooñ jàng ko déedéet waaye ñu ne tooñ moom amul gàllaaj loolu mat naa bàyyi xel léegi ñaareel nga gis koo xam ne ah, day wut ay muslaay tooñ ba noppi nag di jàng muslaay yooyu muslaay du ko jëriñ dara gis nga loo bëri bëri gàllaaj kere ba nga ba tooñee rek la yàqu ah, loolu ñu bari nañ ko bàyyi xel lu mel ni tey bu ñu ne juróom fukki bisimilahi rahmaani rahim ku ko jàngal ab buur wala koo xam ne dalaa tooñ boo ko ko jàngalee jeex na day wedam ceew waaye nag waxuñ nga tooñ buur ba dem di jàng bisimilahi rahmaani rahim déedéet kooku moom du lu wuy si kon loolu itam mat na bàyyi xel kon ñaareel nit mën naa dugg ko so te fekk dafa tooñ waaye su fekkee dañ laa noot ëpp la doole tax ñu dugal la koso wala ñu def ko sa mbokk boo jàngee xasit gi siru bam fi waaye nag waxuñ nga dem tooñ dem tooñ ba noppi nag la ñuy bañ di jàng xasit kooku moom kenn du lu ci kenn du lu ci wuyu ndax Sëñ Tuubaa bëggu tooñ yàlla bëggut tooñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggu tooñ taw maa kaana Allaahu liyazlimahum walaakin kaana anfusahum yazlimuun yàlla nee ne nit ñi ñooy tooñ seen bopp waaye nee na du ma tooñ kenn ku nekk la nga def yaa ko def sa bopp waaye man yàlla def ma la ko bismillahi rahmaani rahim bismillahi sos na ma sama wax ci tàmbale turu buur bi arrahmaani buur bay xewlaa kon bépp mbindeef ci àdduna arrahim tey ajaram koo soob ci àlaxira xaala wax na asayqu sëriñ ba alqadim sëriñ bay sax dàkk di liggéeyal ab yonentum radiya yàlla na doole gërëm moom sëriñ boobu allahu yàlla taala muy aji kawe an wóolis ko dafa njëkk tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim daa di ne ki wax mooy sayxul mooy sëriñ bii nga xam ne dara du itam dara taxul koo jóg lu dul liggéey yonent bi sallallahu alayhi yàlla na ko yàlla dollee gërëm fu mu toll di sotti waa mi ngërëm ci ngërëmandi ci kaw daal man xafisa ku mokkal xaasil abiyata yi bayit la laa yadxulu du tàbbi mu ko fii si ñun ci biit koso nee na képp ku mokkal bayit yi nee du tàbbi mukk ci biit koso kon mat naa mokkal kon nag ngëb leen seenu laxab seen laxabu xasiida ngeen fas yéene ba mokkal xasiid gi wa kullu man képp koo xam ne daqala dugg na mooy tàbbi na fii si ñun ca biit kosaga waaye yàqaru a ta ñu jàngal ko nee na kooku yufu des na ko tijjil des na ko génne ca kosa loxo ñeel ko bi isnillahi ci ndigalug yàlla taala moom yi aji koy sëñ Tuubaa nee na ku mokkal xasida gi nee na doo tàbbi ci kosa te ku tàbbi ci kosa ñu jàngal ko ko dañ ko tijjil kosaga waaye nag bul tooñ ba noppi ñu yóbbu la kosa ngay jàng xasida gi déedéet waaw tooñ moom amul garab amul gàllaaj bañ nañ ko sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee sax tey yàlla su yàlla suñu borom su ci boppam moo wax ne yéeféer fu ne lu muy bon bon ab jullit bu ko tooñee yéeféer bu ñaanee yàlla yàlla nangu ko gis nga kon tooñ tooñ moom amul benn gàllaaj bu ko mën a saafara tooñ moom moo nekk noonu rek ab yéeféer fu ne lu muy yées yées ak lu ko yàlla ŋàññi ŋàññi ah fu ne ab jullit bu ko tooñoon nga xam ne da koo tooñ te tegul ko ci kaw dara benn lay wu jub na ko wóor na ko bu ñaanee suñu borom sax mbugal wàcc jullit moom yéeféer ba suñu borom da koy nangul kon mu ngoog mu ne nag xasida gi moo tàmbali fii wàccaal jamiha sahbi ahbaabi waliftihan lil xayri kulla baabi sëriñ tubaa nee ne wàccaal yàlla na nga def jamiha sahbi mboolem saxaabaam ahbaab yi ñu doon samay soppi waftaxante yàlla na nga hubbi lii ñeel ma lil xayri ñeel yiw ya kulla baabi bent bépp bunt mu ne yaw yàlla maa ngi la ñaan nga def mboolem saxaaba yonent bi sallallahu doon samay soppi waaw neen ndax nee na njëriñam mooy njëriñu saxaaba yi waaye bëgg gi mu bëgg saxaaba yi mooy ndëxañteefam boo demee ci midaad yi wax na ko man nafoom naf yi man hubbuhum xab yi loolu yëpp bind na ko moom sëñ Tuubaa moo tax mu ne maa ngi ñaan nga hubbil ma bépp buntu aw yiw rek hubbil ma ko waccal yàlla nga def jamiha sax bi mboolem ay saaba moom yonente bi yow yàlla bi ñu doon samay soppe waftaxante yàlla na nga hubbil lii ñeel ma kulla baa bi bépp bunt lil xayri ñeel yiw yi bépp bunt boo xam ne bu ca waaye fëggee fekk fa lu baax fekk fa aw yiw na ma ko tijjil waab yàlla na nga may lii ñan ma bil mujtabaa ca daraja ko ñu tànn ko almuasami kada kuñ màggal sahaadatan ak texe tasxabu goo xam ne dana àndaaleeg xusnal gën mu ne yàlla maa ngi lay ñaan di ko jaaree ca darajaay yonente bii nga xam ne mooy mujtaba di almuasam ñaari turam yëpp turam ci bokk almuasam mooy ismu mafal mooy ka ñu ba tey mooy ka ñu tànn ki mu ne maa ngi nga may ma ci darajaam nag mu tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ma may texe gën caa rafetug mujj gis nga gën caa rafetug mujj rafetug lu mat di ñaan la bokk yi mu ne waccal yàlla nga def ma biiti sama fanaan wa ma xiili ak sama kendal muy yenduwaay taaxa muy ak topp goo xam ne maq boola tan gu ñuy nangu la ilaa ma ji ba ke rek dikk ak as saaxa taxawaay bis penc ba boobu moom la ci jublu saaxa boobu mu ne yàlla maa ngi ñaan nga def fu mu mos yendu wala sama tëdduwaay guddi wala sama yenduwaay lépp na doon topp yàlla gu nu nangu ba ke rek di taxaw maanaam sëñ Tuubaa fu mu fanaan fu mu di yendu léppam suñu borom subhanahu wa taala nangu na ko ba kerek taxawaay bis penc gis nga wàccaxal yàlla na nga def ma bii di sama fanaan wa ma xiili ak sama yendu waaye taaxa muy ak topp maq boolatan gadaguñ nangu ilaa ma ji i ba kerek eh, di dikk ak ak saaxa taxawaay bis penc bi wa fuqa yàlla na nga xob bi sit nii sama koso bi rasuli raaxa ci daraja yonent bi nga xam ne mooy raaxa mooy naflaay ba wàccaxal yàlla na nga def xayaat yi sama dund gépp fariaan muy mbég wa raaxa ak naflaay yàlla na nga xob bi sama sama koso maanaam koso gii ma tëj na nga bi xam ne kon da cee jublu rek mooy tukki bu mu nekk ci géej gi dafa jàpp ne dañ koo dugal ci biir koso te yonent bi sallallahu alayhi na sax maanaam adduna ci moom koso la koso la waaye nee na adduna aljana la ci yéefir bi waaye nag duut aljana mbugal la ci ki nga xam ne ak jullit la ndax moom naf laay def cee nekkut ah li suñ taxaa di war ëtt moom boo baaxee sonn boo bonee sonn kon nag baaxal rek mu doon sa njëriñu tey ak ëllëg yoon xew yal na nga xob bi si ñi sama koso maanaam koso gi ma nekk daal yal na nga ma ko dajj jëlee ma ci bi rasuli raxe ci daraja yonent bi nga xam ne mooy naflaay mooy yonentub naflaay mooy koo xam ne bi mu ñëwee la nga def yaati sama dund gépp fa fari an muy mbég warax ak naflaay sama dund gi daal bu mu doon dund goo xam ne coono la joo xam ne borom da fekkee njëriñ la waaye sama dund gépp na doon coono loo xam ne borom fekkee ne njëriñ la muy mbég ak naflaay képp lépp suñu borom defal na ko kamil yàlla na nga dollee matal kulli sama lépp aajilan ci lu gaaw bil kaamili ci darajaay aji mat ja te mooy yonente bi wana ji te yàlla na musal min jumlatil balaa bili bu fekkee balaa bili nga def mooy ak ay ay sëddiit bokkut ak balaa yi mooy mbooleem tartar yi mu ne yàlla na nga matal sama lépp ci lu gaaw jooni jooni ci darajaay yonente bay kaamil mooy ku mat sëkk xalxan waxul xan ci bind ak jukko waaye na nga musal ci mbooleem tartar yi gis nga mu ne wana ji ne yàlla na nga musal min jumlatil balaa bili ci mbooleem tartar yi wala fi ne yàlla na nga fegal al a tubaab yi waaw waaye tubaab yëpp nag ma leen fekkal ba kenn bu ma ci mën a lor wal tuxa jili te yàlla na nga gaawee ruj xaaya samak dellu lil ah li na jëm ci samay ñooñ bil mu am mi li ci dara ka nga xam ne mooy ka yaakaaree ci moom ay mbibét mu yëntu yàlla boo ma fekkalee tubaab yi ba na nga fexe nag gaawee samak dellu ndax maa ngi fii ci tukki bi damaa bëgg nag dellu samay ñooñ ña ma bàyyi Sénégal ne mooy al mu mi li mooy ki ñu yaakaaree ci moom ay mbir di tawsul ca moom yàlla di leen nangul kooku mooy al mu amad waxab yàlla nga may lii ñal ma xayra ridaa in gën ci sa ngërëm ba wusul ak ak ak ka wana ji ni te yàlla na nga ma musal yàlla na nga musal min ci lépp ci lépp lu ñaaw lépp lu ñaaw bil wusul ci daraja yonent bay jokkaakoon ci borom subhanahu wa taala gis nga wa wusul bil wusul bil bi mi ci jublu yonent bi alayhi salatu salaam bii nag day ñaan moom it mu jokk ci yonent bi comme yonent bi ci yàlla borom bi subhanahu wa taala ci la jokk mu ne nag ma may ngën ci sa ngërëm waaye nag ak jokk ci yow mooy jokk gi may jokk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye na nga musul ci lépp lu ñaaw ci daraja yonent bi ba xam la ci yow yàlla ci lépp lu ñaaw bil wusul ci daraja yonent bi mooy jokkaakoon ci yow xam na nga may yow yàlla ma kaw ni sama nekk abadan ba faw saa busra di borom ak mbégte wasa istiqaamatin di borom ak njub kocc bi jaahil busra gis nga ci nga xam ne mooy busra mooy mbég mooy mbégum mboolem ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ndax moo leen di bégal ci aljana mu ne yàlla nag ma may ma doon ba faw di borom mbég fu ma toll ci mbégte rek lay dund ba keroog may tabbi aljana waaw fa basir ibadi allasina yastamiuna alxawla waaw wa annabu ilallahi lahumul busra suñu borom ne ne ñi ngi ñiy tuub di dellu ci yàlla ñooñu am nañ mbég adduna ak àlaxira kon seen lépp mooy ci mbégum suñu borom subhanahu wa taala ci la ñuy dund ma doon nag ma may ma doon koo xam ne borom mbég lay nekk waaye di borom ak jub istiqaama ci daraja yonente bay busra di mbég moo tamit xab na nga may lii ma kaw ni sama nekk abadan ba faw saa busra di boroomi mbég wasi istiqaamatin di boroom ak ju kocc ci daraja yu doom ak jaaju wa salaamun jàmm alal mursalina yàlla nekk ci mboolem ñu ñu yóon walhamdu melu sax dàkk te rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil moom mi nga xam ne mooy borom bi ndifi bokki kon xasida muy xasida goo xam gu neex neex la waaye gu yéeme yéeme la waaye itam danga xam ne kii ko bind ki jekk ko arabin arabiyan la waaw ku man lam wax ne rek yàlla may na ma ci arab loo xam ne xajjam yi ak arab bi yëpp dañ ma ci ñee may na ma ci yonent bi loo xam ne xajjam yi ak xaraam bi yëpp yëpp dañ ma ci ñee may ma ci alquran loo xam ne a xajjam bi ak arab bi yëpp dañ ma ci ñee kon sëñ Tuubaa ñëpp koy ñee moom moo doon nit ku ñuy ñeetaan moom moom dañ koy ñee la mu waxoon ci xasi rek li maahin basiir it minal xayri maqbuutan la dal aqsi wal jari sëñ Tuubaa neen man ku ñuy ñeetaan laa fu ma toll dañ may ñeetaan gis nga kon gis nga tuddee na fa yonent bi al alayhi wasallam al mujtaba al muazzam waaye nag tuddee na yonent bi rasuli raha waaye tuddee na bi al kaamili waaye tuddee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam al muammili waaye tuddee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam al wusul waaye nag tuddee na yonent bi sallallahu alayhi al busra daanaka juróom-benn tur ci turu yonente bi alayhi salaatu salaam indi na leen fii lépp te tur yëpp turu mbég la fa tabarakallahu mbokk yi kon ñoo doon digte xasida gi nga xam ne fa tabarakallahu gu am njëriñ la te bëri solo lool te ay njëriñam kenn mëntu wax lépp yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp ak tawfiq ak taysir subhanaka la helma lana ila ma xalamtana innaka antal alimul hakim ku ci jot ngeen ñaanal seen mbokkum taala mi doon def kàddu gaa